Many protesters in Uganda have clashed with police over rising food and fuel prices, and the United Nations is predicting thousands more could die in the Horn of Africa unless much-needed aid supplies reach the region's hungry people. And with that, we come to the end of the news. Thanks for keeping us company, and do have a wonderful night. From me, Farmer Fofana. જાય તો એક રૂપિયા सांगा ना kiri babu kar la babu kar yéene ñu ko si mani gram bi man kii di asem jaaxal na ma nga fi mu musuh nii waaw aw ma sukkur koor fii laa jëm FAI gi. fii FAI gi. waaw waaw ñooy faj bu mu gàccee yi defoon nañ ko nañ ko defaan defee waaw. ndogu koor. yegal ca biir ku ñëw jël si ñu jox la. ca biir. ah ku moom lii man. ah ak ah, lii nag. fii laa ko xaatee fii. FIG bodem dem di ko fekk ndogu koor mbaadi ñi nawoo kadi yaamu lem fo ye pasi iko ñaadi kadi yaamu foy feŋoye pasi haade allah jayen communication company gamtel ɓe yaani ko kabin téléphone o ko cuk ni banko kan dodoy to leya fintindi wolle kukuta kuto fintindaali ye ika e ye ñaadi wax ɓe tas i ɓaadiŋo kool ina ye diyamu i wo kol ba ina ye yamu bari siiño kool ba ina ye diyamu fo ye pasi hapu watitala dandulatala dandula kadiyamo le fo ifanda ni mam bata ite batala asi keɗo alla bunkono tele funol le to ana allah jamono funol me yalon koye ba allah bugol kono ye happole lon dale karo kono me yalon ko ni yo jodoron ida ka keno nyin sabi sotole folo folo wolen platinum ti e ka dalasi keme saba dalasi tallulle jodoron ida ye ke nyinto bari ye miniti keme di yalla me yalon ko nim kono diyamuno be bulu doron isi diyamuno fanandale amme o merendi fulanñama wala mo dayamonte e ka dala si keme fula dala si tallulo jo karo kono bari ye miniti tallulo dilale me yalon ko isi kumandiro kenole ila bulu kono diyambaranto network o network diyate sabañango wala golti wo woy ka dala si keme dala si tallulo jo karo kono mbaɗin kadiyamu faye pas mu service kutalte me yalon ko gamtel ya fintindi atol bunkon téléphone soto lalle ani men yalon ko ikona fanyi jabona telefono la wota natara ko ila la no fata ika faye ko na fatete la ataki take banga kuna faye wuli hani kabinal lafta kuma ko yolo na nyin service kutoto alila marketing department kumandi warale tela firdulal jibe dawa da banko kan nko wah betas kadiyamulem faye pase wow wow wow wow wow juróomi bii sax sax ñu koy nga maas ni muy defar écart. yaa ko moom. waaw bu réew fii mooy blé bi nga xam ne suñu amee invitation yoo xam ne yu bëree bëri la ñu dem ci ay millions yi nii fii lañ koy def fii la ñu war a jël rek ak ko ci blé bi. waaw lay suñu moto yi road yëpp fii lañ ko liggéey. yaa ngi fii koo sax boobu la. fii lépp ñu bëree bëree fii soo leen buggee liggéey xale la ñëw leen fii loo xam ne dañ ko libéré c'est ordinaire dama ku wetti junni bi laajal ay ici indi nañ fi ñetti foom yoo xam ne ku ci nekk one million cinq mille quatre-vingt thousand foom ñu ñeen bi ñu def alal leen ko même bien ko five million ci les dan xam ne mooy toog këyit yi le fii mooy xam ne finishing section files yoo xam ne dañ ko fee liggéey yaa xam muy personnel yaa xam muy confidentiel yaa xam file boo bëgg rek soo ñëwee suñu liggéey la machine yi ngeen di gis nii ci góor rek ngeen daan gis fii ci printing jigéen la fii la ñuy defaree nombas yëpp ku ko copie rek di nga government yi paracetal yi ñi nga xam ne dañu yore seen business individuel si loo bëgg a defar ñëwal fii ci printing ku fi ñëw bu nekk xamal la jël nga sa xaalis def ko fi nga xam ne fa nga ko war a defee lépp la ñuy liggéey te li ma ci gën a teenee du yàgg óor na amul demal dellu si ndax tamit bu mbóob gi la kon daal fii la ñu foro <laughs> bi nga dégg ah. laa ilaha illallah gamtal dañ defaraat seen branches yi lu mel ni ba Bakaw Westfield Birkama Banjul ca Télégraphe dama ne Serekunda ak tamit kootu ca Sénégambia branches yëpp lañ defaraat xanaa branches yëpp nag ñoo am internet ah, ah internet bi nag dafa am branches yu ko am lu mel ni biir Birkama Sénégambia Westfield ak Churchillstown ñoo am yi nga xam ne mooy internet bi internet ah. speed bi nag naka bare <laughs> kenn waxatu ko speed <laughs> macha allah kenn mënu ko wax loolu gaaw gi day mel ni day naaw wekkaan bi nag bi ngay xool xool ma ma xool la ñu waxtaan boo amoon tàngal sax doo ko yëg yëpp air condition la waaye Gamtel yéen a bari njëriñ jóg leen bu leen demati fen ñëw leen Gamtel ci branche boo jot nag dugg fa toppatoo la ngay toppatoo def la ngay def mu gaaw ba dee ma ne aha gaaw rek kuy bëre bëre la ko mën bëre billaahi yóbbante sa mbër galgal taw koo daan man maa leen wax lii yaay ministère Gamtel rek la بشرى شارة ومنافسة سائدة غالية وهي منافسة مسابقة القرآن الكريم mbaadiŋol mba folal ye ko supreme sami council a ye kiliro kele ko tonke ko ala kiliro muneti wolem ñindi ko cheikh professeur alhaji docteur docteur alhaji yahya ejeje jamme ala competition o aka dalta min ke kan wolen bi daabina datila sama happas 3 o'clock mbemol be koman ye na maabe walla feŋ feŋ mbi ye a lon ko ye to dundi jele kana leete li ma doon wax mooy daal suppi sami kansul ñoo oote waat oote ji moom jàmma mooy daal suñ njiit gi mi nekk daal cheikh professeur alhaaji yahya ejeje jàmme moom moo oote waat ci compétition bu mu daan di def bi nga daal Quran competition suba la moo commencé suba ajuma la daal half past three képp ki nga da nga bind sa nag nga fekke daal nga teew ci balaa mu raw la incha allahu ñu ngi ñaan yépp ñu am dam kuwin ya win kuwinu tamit nga gis na dal sa wen sa wiinaay tam mu ngi ñew ci yoon bi insha allah hada wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh say mina di amula mun mandila moy awalam na division ola chamano al alhaji sose koli aina ni jama ne kacha suma nuyo bu njel ben ko dekkal president jamme ak délégation am nga xamné mom la fi axel suma fa jógee ma ngi nuyu suñ yaay di yaay président bi dinañ wax al haji ejj ne kilifa bakaw yi di wasulung ak bakaw ko kono ñu nga xam ne ñooy doomi Bakaw ñoo ñoo bokka ñu ne ñu ngi baalu président Jammeh lu ko waral président Jammeh dafa musoon a ñëw seen kaw dafa ndeewoo seen gannaaw ba pare waaye nag añ bi loolu du leen raw ñoom waa Bakaw ñoo président bi ñooy bokk añ loolu moo tax ñoo sa ndaw yëpp diisoo nañ pour la ne di nga xam ne yoneen baa ngay dem Madina dafa mel ni doomi Madina yi nuñ ko teertoo loolu lañ bëgg a woon président jamme fii lii moo tax ñu dem tertu la façon yi tertu bii nii nga xam ne doomi bakaw yi luñ wax loolu rek la ñoo lef te lool tamit lañ fi def président jamme ñu ngi laa woon ne bugga nañ la ñu ngi sa gannaaw tey ñu ngi sa gannaaw ëllëg parce que nit la boo xam dafa nekk loo xam benn la si biir Afrique dafa mel ni Gambia ñu yëpp moom la ñoo puugare woo président Jammeh man si suma division bi fii lu nga xam moom la fi def suñ ko limee tamit du jeex ñu ngi nii dégmal élection nit yaa presiden jamme 83 percent dëgg